bi mu demee moo koy wanoon situation lool waaye chaque lundi incha allah dinañu ko fi am su waxtu jotee moom Serigne euh, mu ñëw ngeen ñu seq moom waxtaan wi yaatoo yaatu ci actualité bi ngeen man di ko xaar ci DKR 221 alors euh, Serigne maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyuwanteeg mbokki internet yi laataa ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar di amaat mbégte ak contentement bu rëy vraiment dajawaat ak yow delluwaat aussi di rafetluwaat liggéey bi ngay liggéey ak sa équipe bi ak sa technicien yi vraiment gis nañ professionnalisme bi ak xarañte bi di nuyu aussi les sénégalais de la diaspora nga xamante ni dañuy bàyyi xel ci plateforme digitale bi pare pare tout à fait macha allah yàlla nag mu may ñu dugg ci waxtaan wi ci bismillahi rahmaani rahim jeexe ci alhamdulilahi rabbil alamin allahuma amin yàlla na yàlla nangu ñaan alors euh, Serigne la fois passée bi ñuy def émission junjoon nañ ko Ousmane Sonko ki mbiram dossier am ca conseil constitutionnel waroon a jàll ni ki ajuma bi Euh, finalement ce qu'on a vu mooy bi mandataire am demee dana ko delloo dossier wala dana ko euh, delloo ginnaaw dana ko daal seen dossier matul kon euh, ay parrainage moom duñu ko duñu ko sax xool information bu d'abord yow bi nga ko déggee lan moo nekkoon sa première réaction. ah man déjà suma première lecture par rapport à la situation actuelle de Ousmane Sonko. Mhm. mooy que ni amul dara lu mu ci surprendre parce que dafa mës a yàgg am lu ma théoriser te de plus en plus parce que dama waxoon ni Ousmane Sonko sa situation kooku dépendrewul ci ay avocats yu xarañ dépendrewul également ci ay techniciens yu xarañ wala ab njàngkan mu rëy kooku sa situation ci askanu Sénégal la dépendre parce que da ngay gis ni dafa am volonté boo xamante ni le régime en place daf ko décliner depuis très longtemps te dynamique boobu wàccu ci benn yoon daf koy suivre parce que li koy gën a confirmer Ousmane Sonko bi pôle d'avocat bi mu yor mhm. pratiquement mën naa ni état bi sax yoru ko kon nga xam ne mbir mi bu doon mbiru avocat wala mbirum yoon rek la wu na bu yàgg ndax ay avocat am nañ capacité ak maturité pour gérer ces dossiers là mhm. te li koy gën a confirmer encore une fois il y a des décisions de justice rendues par mhm. des juges par des magistrats très honnêtes est-ce que ces décisions là exécuté nañ ko par rapport ak ni ko code électoral bi waxee kon nga xam ne mbiram dépendre tul ci justice dépendre tul aussi ci euh, ay techniciens yu xarañ wala ay avocats yu xarañ mais constitutionnellement parlant et aussi mbiram dafa laaj taxawaayu askan wi comme ni ko constitution bi sant santaane comme ni ko les principes santa santaane parce que bu ñu fàttani aussi nous sommes dans une république am na loo xamante ni yoon maye na ko constitution bi maye na ko donc loolu man pour man aujourd'hui falaw mbir mi waroon a toll moo tax ma ni de plus en plus ñuy dem man amul dara lu may bett ci comportement administration ñu bañal ko dossier candidature am te effectivement li ñu évoqué mooy dossier incomplet dañu xamul nag lan incomplémentaire ba fan la fan la jógee. voilà justement foofu parce que d' abord li nga xam ne jotagum nañu ko ni ñu ngi ay xibaar xëy na soo mandataire lu mu wax mooy ñu ngi xaar décision ba parce que mu laajee le président lan moo manqué ci. dossier bi daf ko ne daal le dossier incomplet gannaaw bu commission bi réunir euh, li ñu ci jotagum ni xibaar mooy attestation bu mu amul waroon a jugee ci directeur bu caisse des dépôts et de consignation est-ce que nekkul lu woyof un élément boo xam ne lu woyof la ngir ñu alum euh, éliminer ci un candidat à la présidentielle. waaw ah, mais loolu mënul convaincre benn sénégalais bu honnête buy wax dëgg te yàlla tax parce que tout simplement doo xool attestation bi mu manqué xam nga lan ngay xool. Mhm. fa mu jugee lan moo tax mu manqué ko. Mhm. mais bu fekkee ni moom dem na ci caisse de dépôt ñu ne ko duñ la jox attestation parce que nekkoo ci fichier électoral bi nekkoo ci liste électorale bi bu xanaa dañoo fàtte ni ñoom magistrat yi nga xamante ni ñu ngi conseil constitutionnel les sept sages yi fa nekk xanaa dañoo xamul ni seen ay nawle yu jàng même li ñu jàng bokk ak ñoom yenn degré ñoom ñoo nekk ci yenn juridiction yi ñoo àtte ne nañ ko dugalaat ci liste électorale yi kon mun pour man interrogation foofu la war a nekk dañoo war a remettre en cause lan moo war a lan moo tax joxuñu ko kii bi attestation bi parce que attestation bi lu ko ko tout simplement parce que dañu ne man pour man jurisprudence yooyu yi nga xamante ni conseil constitutionnel yàgg na ko atte daf ko waroon jël en compte. d' mais avant sax ñuy wax ci conseil ak mu gën a gëstu dossier lan moo tax waru ci liste électorale la moo tax amul attestation nekku ci liste est ce que CDC ci boppam sax moom loolu war na nekk un motif pour mu bañ a jox candidat attestation. gannaaw bu mu déposé caution dans la mesure su fekkente ne dem na ba war a gëstu loolu ba tax muy xeeñ ko mel ni Ousmane Sonko euh, waroon na mën a xeeñ ñeneen seen attestation ñoo xamante ni am na am nañ ay double nationalité te mu nekk un motif ngir ñu rejeter seen candidature ca conseil constitutionnel. mais malgré tout ñooñu jot nañ seen attestation. est-ce que kon mën nañu wax problème bi euh, problème attestation parce que nekkul ci liste yi wala c'est le problème c'est Ousmane Sonko. non c'est un combat contre Ousmane Sonko xam nga combat bi nguur gi la woon ak hmm. Ousmane Sonko. mais à un moment donné te ku am constat aussi di seetlu da nga xam depuis l'affaire Mame Mbaye Niang nguur gi rëcc na ci bi moo moo yenn xeex bi hmm. te administration bi aussi kenn du si depuis l'affaire Mame Mbaye Niang mais defal historique bi nga xool nga xam ni kii moom boo moytuwul rek volonté bi gars yi engagé wu moom du ci mucc ci procès Mame Mbaye Niang bi première instance àtte ñaata lañ ko daan deux mois ak sursis. Mhm. mais kan a def appel. kan moo ne d'accord ci appel bi. le parquet c'est le procureur de la République. Mhm. bi nga xam moo war a défendre l'intérêt de la collectivité. kooku moo waroon taxaw défendre Ousmane Sonko. Mhm. parce que Ousmane Sonko ci société la bokk kooku moo taxaw ne d'accord ma si nañ ko yokk ñu jëlee daan bi deux mois yóbbu ban objectif. est-ce que du pour bokk baare ko la route pour mu bañ a bokk ci ay présidentielle lan moo fa amaat encore une fois bi ñuy enrôlé waat dossier bi ci délai boo xamante ni Ousmane Sonko amoon na possibilité yoon may na ko mu def recours recours am yé mu déposé recours am ñu dossier bi avant délai délai recours yi te loolu am na ci lu ci loi bi wax yooyu yëpp c'est des violations de la loi boo jugee ci affaire u Mame Mbaye nga ñëw ci affaire u Adji bi loolu la juge bi mujjee rendre sa décision wax na ko évoqué na le ministre de de de la justice bi fi nekkoon muy Ismaïla Madior Fall doonu fi théoriser affaire contumace jaxase lépp mhm. yaakaar ne moom aussi moo dàq jàng ñëpp wala moom rek jàng droit alors que y' a un bu nekk ci côté bi code de procédure pénale 307 bu wax lu leer ci contumace nga ñëw ni loolu doo ko appliquer parce que lan yaa ngi bëgg a topp volonté président Macky Sall ci Ousmane Sonko bu mu def élection présidentielle jalgati yoon yëpp jalgati loi yëpp c' est la réalité des choses moo tax bi ñu ñëwee nga xam moom mujj rendre sa décision. ñëw évoqué article bi parce que wax ni ki ngeen téye du contumace dès que jàpp ngeen ko jeex na léegi jàpp ngeen ko yemuñu si loolu jalgati ngeen loi dem na kaso ñaata acte de non acquiescement la la le maître Ciré Clédor wax ni déposé nañ ko ci fu ñu ko war a déposé yëpp Ousmane Sonko defal ko boppam est-ce que dafa tax ñu bàyyi ko est-ce dafa tax ñu enrôlé waat procès bi comme nga xam ne amul lu sérieux lu am ci dossier bi loolu moo am DGE bañ fa demee di jëli seen fiche de parrainage. dafa am lu mu njëkk a lu mu njëkk a du ko jox parce que dafa njort ni l' agence judiciaire de dafay def appel appel boo xam ne c' est pas suspensif amul njëriñ mënul tax ñu bañ a exécuter cette décision là deuxième fois Ayib Daffé dem ànd ak un huissier en ak un huissier pour mu def constat bi parce que yooyu dañoo bëggoon am de documents juridiques pour bu ñu demee ci conseil constitutionnel ñu ne ko ñun la ñu waroon def def nañ ko kon problème bi du si ñun faute bi du bu fekkee ne tey dossiers déposé dafa am lu ci manqué mais du si ñoom. ci administration bi la lan moo tax administration bi gàllankoor leen ci loolu est-ce que administration bi leen bañ a jox fiche bi leen bañ a jox attestation est-ce que am na compétence yooyu du DGE du caisse de dépôt kenn amu ci compétence boobu pour mën a xañ nit ki ndax nekkoo ci fichier électoral loolu du seen compétence du seen cër donc li li war la woon ak ñoom dans un régime démocratique mooy jox leen bu ñu demee ca cëppandaw ga nga xam mooy conseil constitutionnel bu ñu consulter seen ay dossier bu fekkee leneen am na leneen lu ci manqué ci ñoom seen coobare rek bu boobaa ñu exclure la ñu génne la comme ni ñu génne yeneen candidat yi mais ce qui se passe là kenn mënul xam lan la kenn mënul xam lan la en réalité. d' accord mais tey lan sànq yaa ngi koy wax ñu bëri xëy na Sénégal yu bëri euh, li ñu doon doon nañ ragal quand même candidature Ousmane Sonko ca conséquence mu bañ a nekk lu ñuy valider mais ñu ko doon tiit ñëpp dañ doon xalaat dossier yi nga tudd léegi. l'affaire Sweet Beauty wala mbiru Mame Mbaye Niang mais ñoo ñoo gis ne conseil constitutionnel daal moom dafa génne kayit di compte benn ñaar ñett ñeent attestation amu ci mu ne kon bii dossier du ko xool et c'est pas pour rien quand ñu leen di woowee les sept sages est-ce que tey décision bi nga xam ne jël nañu ko sans ñu sëgg ci dossier bi xool li ci manqué ndax faute la bu mën a imputé kii di Ousmane Sonko le candidat wala faute la bu mën a tuumaal euh, administration comme ni nga ko waxee ngir xool ban décision lañ ciy jël mais contre rek attestation nekk ci kon yow moom seen mbir sànni est-ce que est-ce une décision sage comme ñoom ni ñu leen di waxee. les sept te ñoom aussi xam nga man damay bañ ñuy théoriser ay mots di nax nit ñi fii la réalité des choses fa nekk président Macky Sall lañ fa justice bi président Macky Sall la fa nekkal. te li ma la ñëpp président Macky Sall lañ fi nekk. te balaa ngay xam li ma la wax ni nga dem topp texte yi leen confectionné amul fu ñuy échappé ci président amul keroog wax nañ ci wax justice bi man la justice bi depuis l' indépendance bi ñu amee suñu indépendance ba léegi ci la justice ñàkk a noppee am indépendance mais da nga yaakaar ni conseil supérieur de la magistrature ak hasard tax ñu andi ko ci suñu ay institution du hasard. parce que lu mel nii la ñu doon bañ dañu doon bañ ñoom ñu nekk sous sous tutelle du président de la république moo tax ñu indi le conseil supérieur de la magistrature pour que ñoom ñu am kuréel goo xamante ni moo leen di taxaw mooy tax ba du am benn pression bu jógee ci président de la république di dal si ñoom mais dama nga xool texte conseil supérieur de la magistrature dama nga xool fii li fi ne en réalité mooy. am na nag ay magistrats. Hmm. comme on am na yaa certains magistrats très honnêtes nangoo jël courage yoo xamante ni ay paline. ay palin faalewuñ ay palin li leen ñor mooy at te dëgg comme ni ñu prêter serment mais y a des yoo xamante ne ay ndombul tànk moo leen ñor. mais absent d'en mel ni xëy na doomu aadama fu ay nit ne du ñàkk ñu ñu xaw a ñu xaw a doy waa mais tamit léeg-léeg magistrats kon mu mel ni système bi moo leen di xaw a tënk. ah mais c'est le système système bi nag dafa bëri ay façon système bi dafa bëri ay façon te dafa am ay fondamentaux yoo xamante ni ñoo ŋànk le système le véritable problème c'est le chef de l'État. le président Macky bi mu demee Thiès di xas ñan ci opposition bi. ba di xaw a yëkkati kàddu. nit ñi di ko théoriser dama ne leen nii mu mel def ko boppam. président Macky Sall nii mu mel def ko boppam. constitution bee ko def. constitution bi mooy jël suñu président yi transformer leen en dictature. parce que constitution yi ñu yor c'est des constitution constitution bi ñu koy donn ay période autoritaire la woon ay période autoritaire yu déggool jëloon changé kii bi pour jox doole boppam ñun na constitution yi lañ doon lañ doon boo demee ci constitution bi da gis ni le président dafa am doole li muy doxalee nii yëpp ci constitution bi lay tënku parce que constitution bi ko jox doole muy def lu ko neex nekk buur c'est ça la réalité des choses. le premier chantier du prochain président de la République du Sénégal xëy na kon dina nekk ci tëggaat suñuy institution ak seen i taxi ba wàññi doole ji nga xam ne moom la ñu jox président ba quand même dootul mën a am benn mémis bi ci ci ci yenn euh, pouvoir yu demee ni justice euh, nga xam ne dootul ci am benn mémis bi ba su bëggee candidat du bokk rek mu ne kii moom du bokk faa ma jaale ko ci justice quel que soit alpha kii du bokk du bokk. premier chantier bi war a ki fi war loolu la war a doon gëm na réew mi te bëgg na doxal ci démocratie bu jaar yoon loolu moo war a nekk premier chantier wu ki ñu war a fal pour des raisons multiples et multiformes des raisons multiples et multiformes xam nga lu tax. mu war a nekk njëkk a nekk chantier loolu ki ñuy fal prochainement bu ko deful. ni président Macky Sall di doxalee lay doxalee wala mu doxalee nu raw ni président Macky Sall doxalee. loolu il faut ñu ñu ñu ñu def ci ay réflexions par rapport à la des institutions yi nga xamante ni. tey